suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daan naa wax ne su ko xaar yi doon jar danaa ko am. waaw dañuy jaar si eh, jël si thème bi rek parce que lu dañ ko doon def rek pour euh, un certain résumé waaye itam ñëw ah, si si comment dirais euh, ñëw ñëw si thème bi ndax dafa am solo ki ngay dalal tamit nit ñi di xam kan la euh, effectivement léegi dañuy dugg si thème bi muy thème bi muy la muy muy dialogue islamo-chrétien hmm. mu nekk nag un thème boo xam ne nii maanaam thème bu thème on peut dire que thème bu sensible la hmm. nekkul n'importe qui moo si waxtaan maanaam euh, naka lañ mën a constater que ne kii nii c'est le vrai chrétien ou bien kii nii c'est le vrai musulman waaw foofu daal mel ne laajaat nga beneen laaj ci biir laaj bi hmm. euh, ndax vraiment un vrai chrétien mooy celui ki nga xam ne catholique dëgg mooy ki nga xam ne moo jëfee ndigalu yonentam ah, ci tënk rek julit dëgg tamit mooy ki nga xam ne jëfee na ndigalu mhm. euh, yonentam mhm. waaye eh, dafa mel ni euh, eh, question bi nga bëgg laaj moo di dialogue islamo-chrétien mhm. euh, may wax ne en réalité ci mot boobu noonu dialogue islamo-chrétien existé wul amul wax dëgg yàlla ndax buñ ko déggee laa wax waaye dañu waroon wax dialogue musulmano-chrétien ñu mën a xam ne tegu na ci yoon waaye dialogue islamo-chrétien amut li tax mën a amut mooy yàlla suñu borom moo fi yónni 124000 prophètes te ñoom ñëpp islam la leen joxoon afdalu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illa allah mhm. kon ñoom ñëpp yàlla suñu borom wax ne laa nu fariqu bayna ahadin min rusulin te ñoom ñëpp lan lañ leen joxoon muy islam mhm. kon bu fekkoon ne dañuy wax dialogue islamo chrétien dialogue boobu maanaam mu boobu dama koy defar ndax adduna bi yëpp dañ koy faral di wax mhm. dialogue islamo chrétien may wax ne dialogue islamo chrétien waaye dialogue musulmano chrétien moo am te dialogue sax amu ca waxtaan layante biir la ndax boo xoolee tey euh, ci jamono li yonent yàlla Isa woote moom la yonent la Muhammad woote lan la woote mooy naka la jaam di def ba yegg ci yàlla naka la jaam di def ba bëgg moroomam naka la jaam def ba bëgg boppam xam boppam mhm. te lii ma wax nii boo ko yoree ci alxuraan fekk ko fa boo ko yoree ci diine catholique tamit fekk ko fa mhm. kon islam moom la ñu joxoon yonent yëpp kon bu ñu nee islam moo joxoon yonent yëpp te alquran wax ñu ne yàlla yonent yàlla muhammad dañ koo xalab benni baat ina sanuuka qawlan sahilan ba mu yoree baat boobu muy laa illa illallah kon alquran tamit waxaan waxaat nañu afdalu ma an afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illallah kon li def li tax ñu woote li tax ñu jàpp ne yoonu lu tax ñu jàpp ne yoonu yonent Yàlla Muhammad islam la yor baat boobu ñu ko xalab la te baat boobu lañ xalaboon yoon Yàlla Iisaa rek xanaa kay dañ ko ñii dañ koo lakk ci arabe ñi lakk ci latt ko ci latin mhm. kon nag jaloo gi mooy naka la ñuy la laa ilaaha illallaah ci latin firil ko jaam yi mu leer ci ñoom naka la ñuy firee latin bi tamit ils nuñ koy firee ci arabe pour arabe bi xam ne kaddu googu ñoo bokk yi lenn lu ñuy waxtaanee mhm. kon dialogue islamo-chrétien chrétien daal ci gàttal ci dégg-dégg wax dëgg yàlla nañ ko nañ ko bàyyi te wax dialogue musulmano chrétien moo gën a yanu te moo gën a neex ci dégg comme ni nga ko waxee dialogue musulmano chrétien parce que bu ñu rek ma am na ñoo xam ne waxtaan moo fa am ñu mhm. dialogue waxtaan war na fa am léegi nag yow comme que euh, cest dire que le thème qui s'est mhm. c'est une interrogation l'importance d'une dialogue mhm. islamo-chrétien ça veut dire que dans ce cas on a besoin d'un donc ki war a jalooge mooy ki maîtriser les deux voies parce qu'on ne peut pas être ci deux droites parallèles teg fi tànk teg fi tànk ngarale munoo wax ci benn yoon nga mën a wax léegi ki mën a dialoguer nag mooy ki nga xam ne maîtriser na yoonu katolik di waxtaan ci ay ay ay kilifa ñu wax ko li ci xew lan la ki ci mën a dialoguer tamit doon catholique ci yoonu julit mooy ki nga xam ne maîtriser na yoonu julit waxtaan ci ak kilifa ba mën ci am ay dalin ndax ampuloon na Insa ruux la instant ruuxu laay da nga koy dégg mhm. yàllaa ko yebal ci jaam ñi mhm. waaye nañ jàpp ne yàlla moo doon yebale mhm. ci jëmm ju ne yebal na fa yebal na ci jëmm ju ne kenn ku ne yónni na la kon mun naa wax le cent vingt trois millième euh, prophète c' était Insa ibnu Mariam le cent vingt quatrième prophète c' était euh, yoon jàll Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu nag lii ma nar a wax enrif billahi ñoo ko moom ku dul enrif tak bul jéem a commenté ci lii ma wax jaar ci sabab bi nga xam ne tey Mariama moo di ndeyam waaye tey yàlla suñu borom moo def coobare googu kon yàlla dafa doon yónnee maqaama Isa mooy maqaama esprit la. gé wax naa la sànq ne yàlla yónnee na ci xeet bu nekk yónnee na tamit façon bu nekk waaye ba mu yónnee Isa ak Muhammad ci la jeexal yónnee Isa nag daf doon wax ci ruux. mooy spiritu spiritualisme la doon waxee mm-hmm. mooy ci xel mm-hmm. xel moomu nag am ñoo xam ne dañ ko maîtriser ñii maîtriser wuñ ko mm-hmm. ndax dégg nañ ci sax ñi ko doon weddi mënuñu jëm gëm koo xam ne dafa jóge birit ci yàlla meluñu melul ni ñun ñu bëgg koo gëm yàlla xanaa doo ñu yónnee koo xam ne ci ñun la jóge yàlla ne axa kay lakat jaakum rasulan min anfusikum keroog bi nga xam ne nag moom lañu ñu instant Isa ibnu Maryam ci li nga xam ne mooy jaam ñi dafa am ñi ko gëm am ñi ko desee gëm ba pare am ñi ko gesee gëm ba noppi ba ba tey yàlla nag ci la jël esprit boobu xakka saa wàccee ci jëmmi doomu aadama kon kii dafa woote woon ci xel kii woote ci jëmm joo xam ne seen jëmm la amee waaye nag dafa solo seen jëmm waaye dafa solo tamit esprit suñu borom moo tax instant ci cappaandaw wooteem ba da daan wax ne l' esprit saint dans un corps saint lan mooy esprit bi mooy le Christ Christ bi moo nekkoon esprit bi dans son corps saint ban mooy corps saint mooy sa jëmm ji nga xam ne tey moom ngeen di wooy yéen enrif billahi hat miim xadam dellu miim dell kon ki def dialogue islamo chrétien mooy ki naka la ruux duggee ci jëmm ak ruux boobu noonu noonu ana kan moo ko moom ak jëmm ji tamit kan moo ko moom mhm. kon li nga xam ne moom la Insa doon véhiculer ci mhm. esprit yonent Yàlla Muhammad dafa ñëw véhiculer ànd ak esprit ba ba pare ànd ak jëmm ji mhm. kon ñaar yooyu ñoo fi nekk kon esprit saint dans un corps saint corps bi mooy mim ha mim dell esprit bi mooy ruux gi nga xam ne tey moom la ñuy dëppee Insa ndax Insa ak yonent Yàlla Muhammad rek ñoo fi nekk ala kulli haal yonent Yàlla Insa yonent Yàlla wax nañ ci xam ne góor yàlla wax nañ ci xam ne bu dul woon Muhammad Insa kenn du ko gëm ndax Muhammad moo ko gunge ci mbugal ga borom dégg yi nañu déglu bu baax li may wax mim ha mim dell moo ko gunge ci mbugal ga moo tax mu jógi mu joxe mim ha mim dell ñu déchiqueté ko ruux ga dem ndax ruux moom dara mënu koo laal boo ko bëggee xam sama ruux gii di wax ci sama jëmm ji munoo ci dara boo ma bëggee lor ci jëmm ji ngay laal jëmm ji ngay laal jëmm jooju nag mooy maqaama Muhammad yetu kon képp koo xam ne dialogue islamo-chrétien duggoo foofu rek mënoo koo def wax dëgg yàlla te te pour le képp koo wax ne yow amoo amoo lu ñu wax Euh, esprit saint day mer selon vous maanaam esprit saint naka lay tabbee si nit ki ak naka lay nekk nit ki parce que j'ai regardé un film où euh, Jésus a dit euh, à un vieux nettoie de nouveau pour acquérir le royaume de Dieu après le vieux lui a répondu comment un vieux un vieillard comme moi peut se naître de nouveau donc foofu wax nañ ne Jésus moo ko wax dafa wax ne nul ne peut entrer dans le royaume des cieux sans la deuxième naissance Mais la deuxième naissance ne serait pas une naissance physique, mais une naissance spirituelle. Celui qui est né de chair sera chair et celui qui est né d'esprit sera un esprit. mu ne judduwaatal ci xel mu sell mi boo bëggee dellu ci yàlla moo tax Jésus doon wax ne le royaume de Dieu appartient aux enfants. enfants yooyu nag mën nga gis koo xam ne quatre-vingt-dix ans la am te nekk enfant mooy koo xam ne xelam dootul tooñ xelam dootul mooy yàlla xelam dellu si yàlla comme ni mu judduwaale woon. moo tax mu ne nul ne peut dans le de royaume des cieux sans la deuxième naissance waaye firi na ko deuxième naissance boobu nekkul comme naissance physique maanaam ndaw si ëmb na juróom-ñeenti weer judduwaat na déedéet est naissance boobu sax xel mi moo koy def waaye naissance boobu nag doo ko am mukk ndere amoo cheikh mu rabbi kon naissance boobu pour jàmm yi am ko dellu ci suñu borom faw ñu judduwaat ndax ginnaaw yàlla suñu borom moo ñu wax ne mootoo xabla anta mootoo deewal balaa dee di ñëw kon ku dee di nga judduwaat kon ki ki lay juraat nag kooku ci xam-xam la lay juree moo tax dul jiis mi dafa am waladul xal bu am kon waladul xal bu taxut nga xam yàlla wax waladul mu taxut nga xam yàlla waaye waladul xal bu mooy tax nga xam yàlla kon sëriñ dëgg moo xam sëriñ nga moo xam abe nga abe dëgg mooy ki mën a jël jaam bi juddu fexe mu judduwaat ci esprit saint julit dëgg mooy koo xam ne day jël jaam bi tamit fexe mu judduwaat ci xel mu fexe mu nekk koo xam ne dafay judduwaat ci xam-xam judduwaat ci xam-xam moo di mooy ni li nga daan gis ñu soppil la ko ci xam-xam ni nga meloon ñu soppil la ko ci xam-xam waaye tamit ñu selal sa xol mi jël sa xol bi raxas ko ba mu set li sëñ Tuubaa di wax ne yan hoo anee xëy mi rëy nan kon nit ki pour mu nekk dëgg-dëgg kiy dellu ci yàlla fa mu am esprit saint te esprit saint en tant que julit ñuy waxte en tant que julit nit mu am esprit saint tant demul ci cheikh mu rabbi mu raxas ruuxam ba mu set tabal ko ci pays suñu borom ba mhm. loolu nag ñu ngi koy jaaree ci baatu laa ilaha illallah képp koo xam ne yaa ngi ànd ak sa ndongo ak ku mu mën a nokk munoo koo yóbbu ci yàlla mukk ndere jëloo xelam bi ak xolam bi ak xelam xut yokkam ak yokkam ak yaxam yëpp soppi ko ci maqaam yàlla soppi ko ci esprit saint maanaam ba bu doxatee doxin bu sell lay dox bu waxatee moom lay wax waaye bu xoolatee moom lay xool waaye tamit bu kaddootee moom lay kaddu te loolu mu murabbi bi moo ko mën a def loolu cheikh murabbi képp moo ko mën a defal taalibe ginnaaw boo sukkee ci moom jox ko sa bopp woolu ko ci yàlla tax mu tarbiya ci baatu laa ilaha la àggale la ci ci judduwaat boobu nga xam ne tey moom la Insa di wax tairez-vous lorsqu'on vous persécutera et qu'on vous jugera n'importe quel mal à cause de Dieu kon nit ki tamit na ngeen nangu ñu toroxal leen ngir yàlla nangeen ngeen nangu ñu xas leen ngir yàlla nangeen ngeen nangu ñu def leen lu ne ngir yàlla ndax képp ku ñu def loolu jàppal ne niñ la toroxalee noonu ci yàlla ba nga yëg ne ñii dañ maay toroxal ndax dëgg gii may wax noonu lañ toroxalewoon képp koo xam ne taxaw nga di wax ci yàlla kon daal euh, sëñ Mamadou Ly uh-huh. l'esprit saint dans un corps saint yombut am boo dee catholique waaye tamit yombul am boo dee julit uh-huh. donc donc on yaa dire problème parce que mm-hmm. actuellement gis nañ ne jàkka yi ñu bëree église nu ñu bëree dimanche ñi ngi dem si église les vendredis ñi ngi dem si jàkka yi. Mm-hmm. te bu ñëwee o rencontre les mêmes problèmes. au mm-hmm. euh, au quotidien les problèmes toujours dañ koy rencontré. Mm-hmm. dañu gis ne nit ñi ñi ngi def euh, bépp xeetu mbon yoo xam ne mu ngi gën di bon dañu xam ne teel a gën a si ji ab la après bon gis nañ ko si lu ñaaw loo xam ne nii euh, vraiment nekkutoon ab imaam moo ko war def. gis koo xam ne nii ab jàngalu si église bi mu def loo ñaaw loo xam ne nii moom itam ab jàngalu si église bi. tey moom moo nekk foofu njiit donc euh, selon vous lan moo war nekk saafara si pour que réellement ak ñaawte yu nekk société bi mën mën fii waaw jërëjëf Mamadou li xaafar bi mooy xam-xam parce que dañ wax ne julit bi laay njëkkee yàlla suñu borom dafa wax ne masjidul ilahiya mooy néeg bi nga xam ne mooy néegu yàlla tey nag boo demee ci jamono jakkay tiijaan ngay dégg jakkay murit ngay dégg jakkay xaadir ngay dégg jakkay ibaadu ngay dégg zawiya alaaji malik nangam ak nangam may wax ne kon ana jàkka bi yàlla moomal boppam imaam bu jiite ci yàlla bi yàlla imaam bu jiite ci jàkka bi moomal boppam doo juum imaam bu jiite jaam yi ci jàkka yàlla jàkka ji nga xam ne yàllaa ko moomal boppam doo juum waaye imaam bi jiite ci jàkka murit li neex murit yi ngay wax imaam yi jiite ci jàkka tiijaan li neex tiijaan yi ngay wax imaam yu jiite ci jàkk boo mën a doon lu neex ñooñu rek ngay wax kon mun nañ wax ne ci julit ñi la ñuy njëkkee ndax imaam wax dëgg yàlla kenn ku ne xam na ne ah, julit maanaam bala ngay jiite faw nga xam jàkkay suñu borom bi fan la ne kon loolu mooy tax ma ne la imaam ratib ak imaamul akbar duñ benn kon imaam buy jiite ci jàkk bi nit ñu organiser ci biir koñ bi nga xam ne tey tiijaan yi ñoo ko moom ba murit munut ñëw fa ñemewut ñëw ci jàkkay tiijaan di jàng mooy bu naafiwu waaye tamit jàkkay murit ab tiijaan ñemewut jóge fee di dem di def laasim ci biir waaye tamit jàkkay ti ibaadu kenn ñemut ñëw di di waxtaanee leneen lu du nitu yàlla yi luñ bind ne jàkka tiijaan bu fa ab murit ñemewut dem yëkkati moyen bu sëñ Touba jàkka tiijaan bu ko ab murit ñemewut dem yëkkati moyen bu jàkka murit bu fa ab tiijaan ñemewut yëkkati salaatul faate kon mbir am na. te salaatul faate si yàlla la jëm moyen bi ci yàlla jël yàlla la jëm kon mbokk yi ñoo xamut jàkka yàlla jàkka yàlla bañut moyen bu jàkka yàlla bañut eh, eh, wasifa jàkka yàlla bañut yooya bañut alquran mhm. kon foofee la mbir yéen moo tax nga gis ku jóge ci im jàkka ji ba léegi te baaxagut kon jàkka yàlla mooy baaxal nit ñi waaye jàkka nit moom mënut baaxal moroomam. bu ñëwee ci catholique yi euh, suñ borom instant dafa doon wax ne c'est les démons du temple de mon père car ce temple n'est pas un de commerce je vais le détruire en trois jours et je vais la reconstruire en trois jours les démons du temple de mon père lan mooy démons yi mu ne bàyyi leen yu xaraam yi ngeen di def ci sama mbaaru baay bi bàyyi leen yu xaraam yi ngeen di def ci sama mbaaru baay bii sama néegu baay bii bàyyi leen yu xaraam yi ngi ngeen ci def mm-hmm. mooy commerce yi ñu ci daan def carte yi ñu ci daan def fecc yi ñu ci daan def yu demee noonu ngeen koy defee mm-hmm. mu ne nag dinaa détruire jàkka ji en trois jours mm-hmm. maanaam dinaa détruire temple bi en trois jours te yéen mbokk yi ngeen di yéen ñi may déglu xam ngeen ne jamono boobu amut benn bulldozer wala benn tracteur bi nga xam ne Insa maroon na ko utiliser ngir détruire le temple boobu en trois jours. et pourtant def na ko noonu dafa détruire temple bi en trois jours. kon abbé bi nekk ci église su Saayir bi nga xam ne ciment ak fer moo ko moo ko wëndu maanaam mën naa juum ndax kooku du église su yàlla. église su yàlla mooy koor gi nga xam ne tey Hakasa moom la Insa détruire en trois jours et la reconstruire en trois jours. loolu nag église damay faral di gis ne catholique bu rombee église bi def signe de la croix dëgg-dëgg damay wax ne loolu. lu lu yéema la dañoo xamut véritable église bi ndax véritable église bi mooy soog le corps humain mooy jëmm ji nga xam ne tey moom la yàlla jox la xakk sa moom la Insa doon wax ne sa jëmm ju selle bi waaye bàyyi bàyyil di di def yu xaraam yi ak jëmm ji mun ne sa jëmm jëmm ji dinaa ko détruire ci ñetti fan waaye dinaa ko reconstruire en en ci ñetti fan ci la jox jaam yi les docteurs de la loi jox jëmm ji gars yi di ko dóor ba yàpp yaramam di tas ñu ne Jésus dee na faatu na ñu jël ko daaj ko ci poto ba mu ressuscité avec un nouveau corps kon joxe na jëmm ji déchire nañ ko en trois jours waaye reconstruire na ko ci kattanu yàlla kon église dëgg c'est pas le ciment et le fer képp ko xam église dëgg ab abbé bu xamee église dëgg dootul mooy yàlla jul tamit boo xamee jul euh, jàkk dëgg dootul mooy yàlla euh, sëñ Mamadou li waaye dañuy ñëwaat si si beneen question rek parce que euh, débat bi am na solo parce que ouvrir nga ay perspectives yoo xam ne nii même nekkul woon si biir question yi mais luñ lay luñ lay laaj maanaam ban appel ngay def boo xam ne nii parmi les les musulmans et les chrétiens wala musulmans ak chrétiens yi dinañ ko dégg pour que ñu man si taxaw ngir jëriñ njëriñ njëriñ bi xam ne. moo waaw waaw jërëjëf Mamadou li appel bi may wax mooy nañ xool ci mbindu yàlla. yàlla dafa wax ne man sama mbind kenn waru koo ŋañi te bind naa ay aaya yoo xam ne ñu ngi dox ci kaw suuf kon mbindu yàlla kenn waru koo ŋañi xam nga ne catholique bi ci suuf si ngay dox ci lay dox. Hmm. asamaan moo ko tiim suuf moo la tiim asamaan moo la tiim yow it. waaye tamit war nga xam ne ki ngay woowe catholique bu amaa sax nga koy boddi di boddi ay mbiram yàlla wax na ci suratul baqara kama arsalna ak suratul baqara amaana rasul bi ma unzila ilayka ilayka min rabbikum laa nu farixu bayna ahadin min rasulin yàlla wax ne xanaa xamu leen liñ joxoon Moussa joxoon ko Zakaria joxoon ko Jacob joxoon ko ñëpp les tribus lii ma wax boo dee ab jàngkatu nasaraan la demal ci suratul baqara ay 135 ak 136 heureuse yàlla nee na bu leen def benn distinction entre les parce que li ñu joxoon Ibrahima mooy Zakaria loolu lañ joxoon Jésus te yàlla moo ñu ko njëkk wax ci alquran afdalu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illallah waaye daf na man yabta xayra islaamu diinan wa man yuqbilu minhum wa huwa fi alaxirati min alxaasirin yéen bu leen képp koo xam ne ñëw nga ci aduna te indi loo ma islaam ak saa maanaam du ma la fay kon appel bi may def ginnaaw xamoo sa diine bii nga ne xamoo ndax yàlla nangu na ko wala nangu ko li may njëkk wax mooy julit dafay maandu bu leen boddi képp koo xam ne am na ngëm jàppal na ngëmu yàlla lay dox ci ngëmu yàlla lay dox yàlla moo fi nekk te yor jaam ñi léegi nag yàlla nee na bu ngeen bëggee bu ngeen bëggee ma jubóog yéen na ngeen respecté sama mbind te ki ngeen di wooye catholique fi yàlla def ay bëtam foofu la def sa bët fi mu def bakkanam fa la def sa bakkan ñaari loxo la nga yor ñaari loxo la yor suuf si lay dox moom lay dox asamaan si moo ko tiim moo la tiim yéen a bokk ajjana yéen a bokk safara yéen a lépp yéen bokk subxanahu wa tey boo xoolee bés bu bés bu ñu nekk nii. moom la catholique bi nekk dimanche. Mm-hmm. ci la catholique bi ne waaye mënoo cee génnee julit bi di. kon dimanche jullit ci catholique la ne wax dëgg yàlla musulman tamit ci dimanche ba la ne. Mm-hmm. catholique bi tamit ci dimanche la ne waaye guddi gii ñuy dëgmal munoo cee génnee catholique bi waaye mënoo na catholique bu mu dox ci suuf si kon li yàlla bàyyi noonu teñ kaa bàyyi noonu. te kenn ku ci nekk yem ci toolam bu nawet nawet jotee kenn ku ne sa tool ngay bay loolu la suñu borom wax ne la lakum diinukum waliya diin kon dialogue islamo-chrétien loolu laay wax. ci dialogue mhm. islamo-chrétien. ndax du ma wax mukk dialogue dialogue islamo dialogue euh, musulmano-chrétien laay wax. waaye du ma wax mukk dialogue islamo-chrétien. Mhm. ndax islam lenn la. tous les cent vingt quatre mille prophètes véhiculaient un seul message. Mhm. et le message c'était l'islam. kon message bi nga xam ne moom lay véhiculer ci àdduna bi mooy ñun ñëpp nañ bëggante suñu xol. peace and love nañu bëggante te xam ne dëgg ak njub rek moo fi ne te dëgg ak njub googu jox nañ ko yonente yi waaye nag ñun ñi nga xam ne ñoo féetewoo yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ne nañ ko nañ nañ nañ topp ci njàngaleem topp ci sunnaam ak farataam ndax sunna bi mooy nañu doxalee diggante jur ak moroomam waaye farata nag mooy li ñu dox diggante suñu boroom diggante ñun ak suñu boroom te gis yàlla ci la bokk àgg ci yàlla ci la bokk mm-hmm. euh, dëgg la Cheikh Lamine gis yàlla ci la bokk àgg ci yàlla ci la bokk émission bi neex na bon Cheikh Lamine kanaa dugg ci actualité comme li si mel ni gàmm gi ndaxte thème bi xam nañ ne développé nga ko développé nga ko mais dañu dugg si biir euh, thème bi euh, de euh, dire actualité comme lu mel ni gàmmu gi mu ngi ñëw. Mm-hmm. te bëri na ñoo xam ne maanaam ñi ngi koy ñenn ñi ñu ngi koy aadaal. man lan nga mën a wax jàmm yàlla yi maanaam ñoo xam ne ñi ngi feetee gàmm gi lu tax ñuy feetee gàmm gi ñu si mel ni xaarif yi ak ñoo xam ni maanaam nekkuñu ay xaarif lu tax lu tax ñuy war am dëgëruwaay di feete di feete gàmmu gi. waaw moom li loolu moo lay wax ne bu dee aada mu nekk aada boo xam ne aada bu dëggu la wala boog aada bu jub la ndax ay arxuraan seede na ko mbooloo mu dajaloo di waxtaan di digle yiw ak teraanga mhm. mbooloo boobu ànd na ak ñoom yàllaa ko wax ci arxuraan kuntum xayru ummati uxrijat li naas ta'muruna bil ma'ruf mhm. kon yaakaar naa ne gàmm goo gis mbooloo fa daje te yaakaar naa ne ci yonent Yàlla Muhammad la ñuy wax ci arxuraan la ñuy wax kon ku ko ku ko ku ne bidaa la bidaa bu rafet la bidaa buy dimbali jaam la ndax ku mel ni man gàmmu dégg tey ba ba islaam neex ma ndax bu ma fa demoon du ma dégg yàlla nee na xaalallaahi xaala rasulu léegi nag ñii dañ koy feete nag ci xam ñii di ko feete ci ñàkk xam ñi koy feete ci xam guddi gi la ñuy màggal waaye ñi ko feete ñi koy feete ci xam bëccëg bi la ñuy màggal mooy leer ga ndax guddi ci xam-xam mooy lëndëm leer ci bëccëg ci xam-xam moo di leer kon bu dee bidaa la bidaa bu yàlla nangu la ndax wax naa ko ci laaya ba kuntum xayru ummati uxrijat linnaas na bil ma'ruf mbooloo boobu gënal na ma te jàmm goo gis ñu naan ñii dañuy def gàmmu nañ fa wasifa nañ fa tàgg Seydina Muhammad nañ fa jàng alquran waaye nañ fa waxtaan kon fan la waxtaan ci yàlla doonee lu xaram fan la tàgg yonent bi doonee lu xaram fan la jàng alquran bi daa kon kay dañoo xamut ndax suñu borom nee na yor naa nit ñi am na loo xam ne yonent yi laa ko jox ak ni aju ci ñoom te yonent yii ngay gis boroom xam-xam yii ñu dajeel ñoo leen wuutu ci kaw suuf moo tax suñ borom wax ne al ulama warasutu ambiya yi kon maanaam ki xam di wax ak ki xamut di wax ñoo fi ne waaye gàmm ko gàmm moom ala kulli haal bu dee bidaa tamit bidaa bu yóbbu nit ci yàlla la bidaa buñ dul bàyyete la yàlla na buñ ko bàyyete bu dee bidaa la. Mhm, amiin euh, kon Cheikh Lamine dañ lay bàyyi tamit nga nga nga tàggatoo sa kàddu gu mujj. waaw alhamdulilah. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi macha allah alhamdulilahi ala kulli shay'in alhamdulilahi ala kulli haal waaye alhamdulilahi rabbil alamin eh, Ndiamé TV ñu ngi leen di ñaanal ndax kenn du taggoog yéen te ñaanalu leen ngeen dem ba yor ngandam télévision eh, suma ma ngandam télévision nag na ngeen na ma jégal ab jeune mooy wax faw maqaama jeune bi feeñ waaye télévision bu rëy daal ci gàttal yàlla na ko suñ borom jox leen ko ndax gis nañ seeni liggéey yéen ak ñi ngeen àndal yàlla suñu borom def lu faw ko seen njort ci li nga xam ne yéen a ko bëgg a def. Euh, di wax ne rek fi may tàggatoo euh, damay faral di dégg ñu naan ndax yonent dina wàcc wala du wàcc defe naa <laughs> waaw ñu ne nag yonent ndax dina wàccaat wala du wàccaat. yonent nag du wàccaat ci kaw suuf waaye yonent mi ngi wàcc ci làmmeñ yi. ndax ku taxaw ne la yàlla nee na lum lay luñ ko yónni la lay wax yàlla nee na ku la ko wax luñ ko yónnee rek la lay wax te yàlla nee na borom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonent yi al ulama warasutu ambiya yi saa soo wuutee Macky Sall boo demee ci dëkk boo ne leen dëkk Macky Sall nee na yow da yow déglu wuñ la Macky Sall la ñuy déglu waaye yonent nag bu ñu waxee ne dina wàccaat ci kaw suuf mu nees naa la jël xel waaye yonent mosul ñàkk wàcc ci kaw suuf waaye nag yonent àlla kulli xaal bal jonn yàlla ji may wax ak yéen yonent mi ngi wàcc waaye ci làmmiñ lay wàcc te ñooñu koy jottali jaamu yàlla yi fi may tàggatoog yéen mooy wax dëgg yàlla euh, ñu ngi am mbégte bu baax Ndiamé TV ñu ngi leen di siyaar di leen magal euh, di wax ne man la seen ndongo seen xarit Cheikh Lamine seen di taalibe Cheikhouna Cheikh Mouhamadou Lamine Gueye fii ci yëmbal euh, nekk koo xam ne enrif billahi lañ may woowee waaye la ñuy woowee képp koo xam ne nangul nga Cheikh Moussa siise di wax ne Ndiamé Daaru mooy suñu mujjadit ci kaw suuf mooy ki nga xam ne moo lay moo ñu leeral dëgg moo ñu yëkkati yóbbu ñu fi kawe woon suñu njort di wax ne euh, kon ci loolu laay profité di wax ne kenn ku ci nekk ci ñun na yëg ne lii ñuy waxtaanee fii coobare yàlla rek la euh, ndimbalu yàlla rek la waaye tamit nangul nitu yàlla la képp ku bëgg àgg ci yàlla nanga nga nit nangul nitu yàlla mu wax la li nga xam ne tey moo nekk ndax xam-xam kenn du ko amee ci ay téere hmm. la vraie connaissance ne s'écrive pas à la page d'un livre à la portée de n'importe qui mais ça communique de bouche à l'oreille dans un endroit calme te loolu lañ defal sang bu tedd ba inaa fatax naa lakka fatxan mu biinan li yakfira lakka kon mbokk yi lii rek moo nekkoon euh, kaddu yi nga xam ne maa ngi leen koy waxa maa ngi waxtaan ak yéen ci loolu di leen jaajëfal di jaajëfal ñëpp di siyaare suñu xalif général alaaji Keeba Cissé mu tedd ma mu yaaram bi ñu ngi lay siyaar ak njabootu saayaram ak baatinam waaye du ma mukk jóg ci kaddu gi te siyaaru ma sama xarit Cheikh Omar Cissé sama Cheikh Adama Cissé di ay doomam waaye ñu ngi siyaare Cheikh Souleymane ñaan gaynde bu daay ñu ngi siyaar maam maam Assane Diop ñu ngi koy siyaar borom kurus yi nga xam ne danaan rangoo kurus bañ topp bañ jàppee ko dof ñu ngi siyaare maam as Xasan Diouf naaru Kawsara waaye ñu ngi siyaar Cheikh Mouhamadou lamin Gueye moom mi roy yoon ci Yàlla Muhammad ci saayir ak ci baatin allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman xadaada ma fi hilmillahi salaatan daimatan bi daami mulki la sa jërëjëf euh, Cheikh Lamine euh, vraiment kontaan nañ si dalal bi ñu dalal Euh, yaatu na waxtaan bi yaatu na li ñu soxloon si yow euh, gëm nañ ne yaakaar na ne am nañ ko waaye euh, du ñu suñu la sang santé ba pare duñu noppi itam di sant soxna Nogaye parce que buñ la buñ la jotee c'est grâce à elle yàlla te itam di sant tamit ñenn si mbokk taalibe ñenn si yàlla yàlla gor yàlla fi teew ñëpp képp ki bëggee Ndiamé TV bi rek ñu ngi lay bëggee di la siyaare di la màggal nga nekk biir biir réew nga nekk bitim réew ku si mel ni ñoom benn aya te ak ku si mel ni Baye Cheikh nekk États-Unis si Sina Aline ak ñoom mbokk ta yeneen mbokk taalibe ñoom Baye Sidi ñoom ñoom ñoom Baye Seet Dieng yéen ñëpp ñu leen di bëggee di leen siyaare di wax ne maanaam euh, kontaan nañ si yéen bëgg nañ si yéen Ndiémé TV ba beneen jamono ba beneen seen émission invité du jour jërë ngeen jëf. suñuy jaar jaar daal dañu nekkoon nag dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daan naa wax ne su ko xaaritoon jar doon naa ko am.